abonnez-vous nos sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes Ça, su ne kile di Thierno Alassane Sall moomee daal dinay àddu rek ginnaaw ba ñuy rek amal suñu nag fête de l'indépendance moom Thierno Alassane Sall nekk député foofee ca pencu ndaw réew ma nekkoon fi itam euh, député nekkoon fi itam ministre daal dinay jël kàddu rek ginnaaw nag ba mu gisee nag discours bi nga xam ne njiitu réew mi Macky Sall daal dina koy def nag jëmale ko ci askan bi mu gis ne sax kàddu yi nga xam ne moom la yëkkati loole nag bokkul benn yoon ak muy jëfee dafa rekk daal di sacrifier kàddu yi nga xam ne yoon la waxoon waaye na jàpp nag histoire nag du fàtte leen jëm ca na nga xam ni noonu la taxawee ca bu muy bëgg réew mi ndax gis nañu sax moomee njiitu réew mi dafa rek daal di nag jël li nga xam ne moom mooy avenir nation bile daal di koy defee neneen ndax la xalaatoon ci moom sax moom fësalu ko wala doxewu ko muy kàddu yoo xam ni kile di président bu parti de la république des valeurs réewu ngor moo daal di wax rek lu ñu mel ginnaaw googee sax ma ngi koy daal di wax ca ñetteelu mandat bi nga xam ne nag jàpp nañ ñi moom loolee du fi am te loolee buñ ko fi defee nag dañuy rekk daal di dindi wor réew mi te loolee duñ ko nangu a benn yoon. abonnez-vous ci sunu chaîne FTTV